juróom ñett waxtu ci guddi yu toftal ñaar fukki simili ak juróom moo jot ci asalem bururi ci Ziguinchor waaye itam ca cyclo nord ca Kolda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auditeurs yu Mouhalim info ñu ngi leen di nuyuwaat baax di leen ziar tey ji gaaw fukk fan ak juróom ci weeru avril ñaar fukk nag ñeent ci weeru ramadan ñu baax leen lenn ci xabaar ci guddi gi tàmbalee ko ci Cheikh tiijaan yu mi nga xam ne fal nañu ko léegi yees mu nekk secrétaire général national bu parti l'unité et du rassemblement PUR moom kon léegi moom mooy secrétaire général bi décision la boo xam ne nag ñu ngi ko jël jaare ko ci benn congrès ordinaire boo xam ne amal nañ ko ñeel parti boobu di PUR ci teewaayu itam njiitu Serigne Moustapha si mi nga xam ne mooy kilifa ak bi kon Cheikh Tidiane yu mii ngeen miin mu bokk ci leader yu coalition yu askan wi kon jàppale na kon léegi moom mooy secrétaire général national bu parti euh, PUR unité de ma bu Serigne Moustapha yoon jox na dëgg ki nekkoon recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar daana ñëw léegi ci àkkale xabaar bu ginnaaw ba seen def baax gërëm suñu partenaire bi anal yi guddi gi di waa seen xom a lépp loo euh, am nañ ay appareil analyseur quantum yu xarañ comme ni mu leen ko waxee yoo xam ne boo tegee sa loxo rek lépp luy wéy di sa tànk ba sa bopp mu génneel bu noppee fajal la ko bokk na nag kenn faj muy diabète asthme fibrome kyste prostate règles douloureuses hépatique rhumatisme trouble digestif nerciatique trouble impuissance émeute interne externe ndoxum siti articulation ak itam seen fauteuil de massage bi nga xam ne xarañ na lool ña dem itam wax nañu ko fauteuil boo xam itam am na sutura baax lool rawati ci nga xam ne ay mag lañ seen di sax di métti itam fauteuil bi baax na ci ñoom lool bi nga mu ngeen a jaare ci euh, monsieur Diop 77 749 58 73 77 613 33 47 77 613 33 47 seen xom nag ah, ñoom ñi ngi ci ah, Touba ca Dakar ak ca Mbour ña nga ca Kaolack ak ca Ziguinchor ak ca Saint-Louis yéen ñi nekk Saint-Louis sax am na ay ticket spécial yoo xam ne seen xom may na ko jaar ko ci ah, ñoom jàpp na lu Moussa Diop may na ko auditeurs yu Mouhalim info képp ku nekk Saint-Louis te bëgg am ticket de massage mën ngaa jaar ci numéro yi ma leen jox boo ko wooyee rek xamal la ko fekkee ak Saint-Louis dana la may nga ma dem amal massage boo xam ne da nga yëg bu baax a baax njëriñ wala nga jaar ci Mouhalim bu ko defee ñu mën laa booleeg Moussa Diop ay ticket yoo xam ne may nañ ko Mouhalim Info ñoom waa seen xam ñooñu ko may ngir ci liggéey bi nga xam ne ñoom kon ticket de massage ñeel euh, euh, auditeurs yu Mouhalim Info ya féete ca Saint-Louis kon muy fañ mujj ubbi seenu seen i euh, banqaas kon yaakaar xabaar boobu ñu wax ci professeur Ibrahima Thioub mi nga xam ne moom moo nekkoon recteur bu université université Cheikh Anta bu Dakar moom nag yoon daal dina koy jox dëgg maa am na dëgg ci kaw ñetti étudiants yoo xam ne dañ ko yóbbu woon ca yoon le 23 mars bi ñu génn nag attekat bi daal koy sa góoñ doon ko lijjanti waaye nag daal dinay génn nag ab er, ab verdigam la 13 avril bii ñu génn ba mu génn daal la mu def daal mooy daal setal wicci ki nga xam ne moo di recteur ki nekkoon recteur bu euh, université Cheikh Anta Diop di euh, Ibrahima Thioub daal di nag daal euh, député ñi nga xam ne ñoo di partie civile bi lan doon sàkku daal mu juut am ndax ñoom étudiants yi kat dañ leen a dàqoon foofee ca ci université ba ñu yóbbu woon yoon ca ñu yóbbu woon ca yoon ki nga xam ne moo di recteur bi ñoom étudiants yi nag ñoom ñett ñëpp ñett lañ ñoo xam ne ñoo nekkoon ca fa ñuy wax FASEC ñoom ñii nag ah, dafa am benn ah, dàq gu dañu leen dàq fa jaarale ko ci procédure wax boo ci wàllum ah, discipline maanaam commission de discipline bu université Cheikh Anta ñoo leen dàqoon muy Alioune Ñing Cheikh Diop ak Momar Diong buñ sukkandikoo ci 221 ñoom ñett étudiants yi yëpp nag amuñu nag amuñu daal la ñu bëggoon ndax ba ñu yóbboon kii ca yoon ñoom nag ñi ngi ci comme ni ma ko waxee ñi ngi ci faculté des faculté des sciences économiques et de gestion ca FASEC mbir mi nag mi ngi amoon février 2016 kon ñoom la ñu bëggoon taxoon ñu yóbbu yoon Ibrahima Thioub mi mujjeewuñ cee am ndam muallim njëgum ndoxu réewum Sénégal bu ñu moytu dana yokk te nee ñu li ko a waral mooy pertement boo xam ne daal am na ci ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi di ko daal di ko jaay ci réew mi ginnaaw ñetti at ba ñu yoree lu ñu wàllum ndox mi ci réewum ah, Sénégal di seen hoo ñoom daal nee ñu am na ay rumeur yoo xam ne jamono ji nag mi ngi ah, circulé ñu wax ne daal am na perte goo xam ne dab na leen toll ci 17 ah, milliards de francs CFA fukki milliar ak juróom-ñaar dafa am nag benn conférence de boo xam ne forum civil ñoom ñoo koon amal tey jii le 15 avril 2023 foofee daal ci biir conférence bi daal tey ñu xamee daal yorinu ndoxum réewum Sénégal daal ji am na ay jafe bu ñu sukkandikoo ci déclaration yi nga xam ne Mamadou Mignon Diouf nee ñu mooy coordinateur bu forum civil na koy ah, def xanaa forum civil kon day ñaar man forum civil bi ma xamoon daamal ne Birahim Seck moo ko jiite foo xam naa daal foofu am na confusion waaye xëy xëy na kon day ñaar ne daal jafe-jafe daal moo ci am ci lu ñeel ah, ñi nga xam ne ñoo ndox mi di ko joxe ci aju nga xam ne am na perte yoo xam ne ñetti at daal am nañ ko maanaam perte moo xam ne dam na leen ci ñetti at muy fukki ah, milliards ak juróom ah, juróom-ñaari xam dam na leen loolu na tax daal ne bu mu moytuwul kon dina yóbbu ndox mi daal di koy yokk ndax manque à gagner bi nga xam ne dab na société boobu yi ñoom forum civil nag ñu ngi woo gouvernement bu réewum Sénégal ne bu ñu nangu mukk ñu di leen imposé ñu yokku njëgu ndox mi fii ci réewum Sénégal ñoom engagement yi ñu jëloon nañu ko respecté te bañ a dugg di yokk ndox mi ndax kat ah, réewum Sénégal moom joon gi nañ leen lu may yokk rawatina nag di yokk ndox mi nga xam ne moom ñuy jëfandikoo. te faale ses camarades ak is Macky Sall cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci PRP di parti bu Déthié Fall dañoo jaara ci rencontre boo xam ne dañ ko amal tudde ko ndogu avec la presse foofee nag ñu daal di naqarlu jafe-jafe yi nga xam ne jamono jii sénégalais yi ñu ngi koy dund ci lu ñuy wàllum certeg dund gi ñu daal di nag tuumal président Macky Sall daal ne moom rek mooy responsable ci mbir mi ñoom nee ñu tey jii ci réewum Sénégal ñu ngi dund ay jafe-jafe yu metti dund gi seer na lool ba noppitam yokk yokku ba noppi itam maanaam manqué exemple lu mel ne saaku sukkër wala boog sukkër moom gis ko rawat na ci période ramadan bi moom lu compliqué la di loo xam ne moom la Abdourahmane Sall daal di wax di secrétaire national des cadres de parti républicain pour la pour le progrès du PRP moom nag mu jaar foofu moom secrétaire national du cadre du PRP daal di leeral daal ne sukkar si jamono ji manqué yi nga xam ne manqué na ko métti na rawatina ci période ramadan bi nga xam ne nit ñi dañu ko jëfandikoo mu jàpp kon kenn rek moo ci responsable moo état du Sénégal ci njiital président Macky Sall ne moom dafa bàyyee mu maanaam ñoom ñu monopoliser li nga xam ne moo di marché bi te ko produire ndax ñoom li ñu diglee diggee pour production ci at mi muy toll ci cent vingt mille tonnes te nag Sénégalais yi nag li ñuy itoo ëpp na loolu fuuf fuuf toll ci cent quatre mille tonnes kon mu ah, jàpp na daal ah, jafe-jafe yi sénégalais dundu kenn rek wala bokk ñoom ñi ànd di ci jàpp na ne jafe-jafe yi sénégalais dund kenn rek mooy responsable te mooy ah, président Macky Sall Mouhalim Info élection présidentielle Ousmane Sonko bokkul loolu moom xel ko ba tey loolu di gis-gisu ñi nga xam ne ñoo nekk ci PRP ñoom cadre yi wax nañ daal ci procès en appel bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang bii de ñi mu àndal ñu daal di nag am njaaxle lool ci dossier bii nga xam ne mooy di Ousmane Sonko Mame Mbaye ñoom daal jàpp na ne dossier bi moom ca ginnaaw la kenn làqatu daal lu may Ousmane Sonko mii bu mu nekk candidat na leen lool buñ sukkandikoo secrétaire national des cadres du euh, PRP yëmuñ ca ñoom daal euh, a amal ci réew mi élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko loolu moom na daal loolu moom xel sax jëru ko xalaat di wala di ko jéem jéem ba tax na ñoom waa PRP ànd ci ak seen président Déthié Fall ñoom ne gën wane seen détermination ngir nekk kër président Sonko jàppale ko waaye itam woo euh, mbooleem doomi Sénégal yi doomi réew Sénégal yi nga xam ne ñoom daal dañuy xeex ngir am justice ci réew mi ak itam démocratie bu sax ñu def bloc ngir xeex daal euh, def ko nag ci combat patriotique contre képp koo xam ne dangaa bëgg a éliminer Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle le 25 février 2024 bi ñu dëgmal ñu jàpp daal président Macky koo jaar nag ci euh, wàllum yoon mu arrestation de Bassirou Diomaye Faye Khalifa Sall exige sa libération immédiate Bassirou Diomaye Faye ñu jàpp ko démb ci aljuma ji ginnaaw bu mu génne woon ca biroom ca DGID maanaam fële ca impôt et domaine ñu di koy jàpp nag jaare ko ci ab publication boo xam daal ne ñu def ko def ci page Facebook am di cee naqarlu wala boog di wax ci comportement lenn ci attaque yi Sénégal condition yi nu ko jàppe ak jàpp gi moom secrétaire général bu parti ñu baree bare bari ñu ngi koy naqarlu bokk ci classe politique bi lenn ki ñoom ak itam ñu baree bari ci membre société civile bi ku ne sax Alioune Tine wax na ci xam ran ki ñëwaat Khalifa Sall mii nag moom daal ma ngay naqarlu ni ñu ko jàppee ak méthode bi ñu ko jàppee mu jàpp lu mel daal dafa doy te lii nag daal dafa ëpp jàpp gi ñu ko jàpp daal jarul yoon moom leader bu taxawu Sénégal euh, jàpp na nag lii nag beneen paala boo xam ne rek day gën di taqal démocratie réewum Sénégal moom mi nekkoon maire bu dakaar di sàkku nag kenn mu gën a gaaw ñu bàyyi ki nga xam ne moo di secrétaire général bu parti Pastef bii waaye nag ñu respecté liberté individuelle maanaam liberté leen individuelle et collective yi nekk ci réew mi nit ñi ñu respecté leen seen ay xalaat ak seen i gis ñu mën ko wax te wattandiku nag li def ku euh, génn rek wala nga wax dara yaat lay téye Khalifa Sall daal jàpp gi moom naqari na ko lool. bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné